dal leen ak jàmm fii ci région bu kedugu mu nekk région bi nga xamante ne bokk na euh, ci fukki ak euh, ñeenti région yi nuñ ko xamee ak euh, importance bu mu xam gannaaw ba ñu amee fii benn tukki nemmeeku ñu daje ak ay ndaw yu bëri yi nga xamante ne wax nañu ngir état bu Sénégal tamit jàppale leen ci xëy ñu dem teewlu leen ci ay kàddu ñu bëri ci ñi leen ndaw ñi ngi war a am ñaar fukki at ak juróom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 ñi bëgg nekk dans la ville de Kédougou ou un peu partout à travers la région de Kédougou bëgg liggéey dans le domaine entrepreneurial que ça soit dans l'agriculture que ça soit dans l'élevage que ça soit dans l'agrobusiness de façon générale ou dans le commerce mais malheureusement amuñu ndibal te moo ne de tey jii lañu mën a def ngir ndaw yooyu mën a am ay xëy faw rek ñu wutal leen ay formation professionnelle ingir rek ñu mën a am yaakaar xëy ci ay société yu bëri nekk fii ci réew bi rawatina foofee ci Kédougou looloo tax état bi ñu ngi koy ñaax mu créer des instituts de formation pour jeunesse yi bi mën a am qualification prétendre postuler si si société minière yooyu. pour nga dugg société bi il faut ñu former la te bu ñu la former danga nga war a euh, dugg société bi moo tax it zone yu bëri malheureusement duñ leen mën a jël parce que formé wu leen dafa. pulvériser d'abord euh, jeunesse bi pour ñu am ay formation si wallu bu nekk parce que la preuve commune pour Tomboronkoto si maire ak équipe am jël na engagement sur euh, FFTP pour ñu dimbale jeunes yi pour ñu nekk formation gros porteur mais malheureusement ba léegi euh, day ñëw ci euh, point de départ mooy lan manque de renforcement de capacité manque de financement par rapport à ces projets entrepreneurial et loolu yëpp day favoriser. ñàkkum xëy biile bi nga xamante ne nemmeeku nañu ko ci ndaw yi nekk foofe ci Kédougou loolu sax moo waraloon ba ñu bëri ci ñoom di wutali bitim réew jaarale ko ci géej gi. voilà ndaw yaa ngi fippu dem dem di di dugg si géej bi parce que parce que dañoo dañoo sonn dañoo sonn Kédougou defa am koom-koom Kédougou tey Sénégal Sénégal euh, euh, Sénégal je peux dire que ci Sénégal yëpp Kédougou moo gën a am euh, maanaam richesse. immigration clandestine j'approuve dégg la ni am na xale yi Kédougou yoo xamante ne ñu ngi ci ñu ngi ci c'est vrai ba léegi déggaguñu am na ay perte en vies mais. ce qui est sûr mooy am na un taux assez élevé yii di jóge zone nu Kédougou loolu dafa am. boo gisee ñuy dem c'est parce que ils n'ont plus d'espoir amatuñu espoir bu ñu amoon espoir dañuy toog mais ku bëgg a entreprendre amul financement lan lay def ku bëgg a liggéey amul liggéey lan lay def mais dangay ngay sàcc wala da ngay fen wala da ngay def leneen. donc tey euh, problème bi nous on on on nous en sommes conscients mais malheureusement fu ñuy jooytu chaque fois dañuy naan ñun dañoo bëri problème. loolu moo tax souvent y' a énormément de difficultés xale yooyu dañuy dem ba amatuñu benn espoir looloo tax gaal yi gars di ko jël di dem. ci loolee ndax mun nañu am yaakaar wala déedéet ci gouvernement bu bees biile bu Amadou Ba ba tax na ndaw yi le kenn ku nekk yéey na yàppi ci mbir mi. parce que société loolu la ñuy laaj mais état bi euh, ak gouvernement bi ñu nemee nii am nañ yaakaar. changement dina am ci wàllu ndaw mi surtout région bu Kédougou parce que. Euh, man personnellement aw ma ci espoir parce que ñoom déjà orientation bu ñu joxee ci gouvernement boobu dañ ne un gouvernement de combat quel combat. combat politique parce que bu ñu jëlee ci contexte bu ñu nekk contexte politique lañ nekk combat politique peut-être mais tout en sachant que yow say jeune chaque jour que Dieu fait di nga gis quatre ba cinq pirogues yi génn sa dëkk di dem te ay xale yu ay ay ndaw ñoo fa nekk. donc espoir munul am ci gouvernement bi parce que ñoom déjà ci Dialmen dem nañ ba ne euh, c'est un gouvernement de combat peut-être ci sens figuré buñ ko jëlee mun nañ naan combat pour aller vers euh, euh, donner plus d'emploi aux jeunes donner plus de formation aux jeunes permettre à l'autonomisation de la femme xëy na peut-être ça mën nañ ko comprendre ci sens boobu mais sensu combat buñ ko joxe c'est purement politique donc ñun amuñu espoir Kédougou bokk ci région yi nga xamante ne lañu mujjee créer fii ci Sénégal am na potentiel bu mucc ayib ci wàllu ressource minier waaye loole taxut ba ñàkkum xëy bi wàññeeku ci région biile loolee taxut ba ñàkkum xëy bi ñu jëlee ko ci région biile ndax nguur Sénégal ba léegi mënut sax am stratégie bi nga xamante ne moom lay saafaral jafe-jafe yi nga xamante ne yooyu la ndaw ñi di jànkoonteel ci région bi. voilà mu nekkoon ay jeunes yi nga xamante ne ñu ngi ci région bu Kédougou lii lañ leen indi woon gannaaw càkkuteef yi nga xamante ne euh, sàkku na ko ci nguur Sénégal ngir mu jàppale leen ci li nga xamante ne loolu mooy ay xëy euh, fii ci région bu Kédougou.